Sénégal boo xoolee li xew mun naa ne sax sécurité ah euh, euh, euh, neexu la wax waaye ci Sénégal rek la am boo xoolee li xew ci dëkk yi ñu wër ak li xew sax ci dëkk yu mag yi nga xam ne dañu naat li fa xew ci wàllu insécurité ci wàllu terrorisme ci wàllu radicalisme ak yu mel noonu ak lii xew ci G5 Sahel donc mun naa ne Sénégal li fi am yàlla na yàlla xeeb dolli waaye ci wàllu jàmm ak ci wàllu kaaraange am nañu ko maintenant exception nag day am lu ñàkk ay cas yu am terewul président li mu waroon def ci yokk policiers yi ci lim ak ci doole ak ci moyen def na ko mu ngi koy def li mu waroon def aussi ci yokk ma rek pompier ak ñëpp en tout cas ci wàllu ressources humaines ak ci wàllu moyen logistique ak yu ni mel mu ngi koy def loolu aussi moo tax mu créé ASP ngir liggéey bu mucc ay bu am solo bi nga xam ne waaye takk der ñu ngi koy def ñu gën leen ci jàppale Euh, mission yi nga xam dañu ko dëng daf ci bokk ñu teew ci commune Sénégal yëpp pour yokk kaaraange communes yooyu jàppale way takk der liggéey bi nga xam ñu ngi koy def moom moo tax ci tàmbali dañuy jël fukki commune fukki gox ak fukk fukki gox ak juróom ah, ak fukki gox ak euh, quinze commune ak quinze département pour teg fa lu ñu tuddee contrat locaux de sécurité contrat locaux de sécurité boobu administration territoriale daf ciy am yoon police am ci yoon gendarmerie am ci yoon euh, clergé bi am ci yoon imam yi am ci yoon association de quartier yi am ci yoon organisation communautaire de base yi am ci yoon groupement d'intérêt économique FAP yi am ci yoon chef de quartier yi am ci yoon conseil de quartier yi am ci yoon donc ñoom ñooy daje te comme ASP dañ leen recruter bàyyi leen fi nga xam foofu lañ dëkk aussi commencé nañ consultants yi dem nañ ci dëkk yi pour waxtaan ak nit ñi Fatick bokk na ci fukk ak juróomi commune yi nga xam ne ci la ñuy tàmbalee. donc ci fan yu néew di ngeen gis que dina am dispositif ASP bu ñëw ci dëkk bi pour yokk kaaraange dëkk bi donc loolu aussi c' pour dalal seen xel. le perspective de développement agence bi bi président amalee xalaat bi bari woon na coow comme xalaat yu rafet yu bees yëpp nga xam ñoo tabax àddina ni ñuy tàmbale suy doog tàmbali da ngay wér ci sa dëgg waaye ñiy woote diina sax noonu lay demee waaye day dem ba ñëpp fekk si la. tey mun nañ ne kuréel gi nga xam ne moom laa jiite muy ASP royukaay la parce que lu am fépp la lu mun a ñàkk la te lu yokk ci àddina la Sénégal gis nañ 87 li fi xewoon ak policiers yi ñu woon ci nguur gi delloosiwaat leen boo demee Canada steward la ñuy wax boo demee France aussi police de proximité la ñuy wax donc am na ci dëkk yëpp mais président bi mu ko xalaatee ak innovation bi mu ci def bari woon na coow mais tey mun nañ ne royukaay la Burkina ñu ngi koy def fukk réew ak juróomi bokk CEDEAO ñëw nañ fi pour jàng li nga xam ne président loolu la xalaat ngir ñaari mbir yokku kaaraange réew mi dooleel en tout cas way takk dëri ci liggéey bi ñuy def ak jox lim gu takku fukki junney ndaw ñu bokk ci ñuy tabax réew mi maanaam liggéey donc loolu mun nañ ne yokkute la tey buñ ñu demee ba kër gi doon royukaay Afrique doon royukaay ci àdduna bi xale yooyu nga xam ne dañ leen tànnoon ngir kaaraange ñu leen di jëfandikoo ci fànn yëpp ci pàcc yëpp. comme ay chauffeur comme ay assistant comme ay archiviste comme ay comptable comme ay infirmier comme ay informaticien ainsi de suite ñu dem ba juróom-ñetti at après président xolam sedd ci xale yooyu nga xam dañ tollu seen diggi ndaw jël seen jëmm jox ko addi askan bi mu ne dootuñ leen yewi bien que ay volontaire lañ woon yoon dafa bëggoon ñu yewi leen président ne nañu fexe saxal seen liggéey bi nga xam ñu ngi ko yor ndax amal nañu njariñ askan wi ci la ne nañu teg benn corps spécial loolu liggéey nañ ko ba pare kayit yi jébal nañ ko suñuy kilifa donc mun nañ ne dañu jóge ci volontariat ba ci corps spécial. Badji euh, tey ñëwoon nañ fi di waxtaanee lu am solo maanaam li jëm ci mbirum euh, formation bi formation wu euh, agent yi nekk ci agence sécurité proximité mu doon lu ñuy rafetlu ndax bi ñu fi ñëwee tey jii directeur général bi teew na fi président conseil surveillance bi aussi moom it teew na fi. Euh, kii di monsieur de la commune de Fatick ak commissaire ak chef d'unité yi nekk ci département yu Sénégal yëpp ñoom ñëpp teewoon nañu jotaay bi mu doon lu am solo ndax tey jii yaakaar naa ne bu fekkante ni da ngay liggéey laaj na tey jii euh, nga am loo xamante ni dana tax ci sa liggéeykaay nga mën ci yokk la ngay jàppale nit ñi ndax bu fekkante ni service public nga yore pour man laaj na euh, yenn temps yi ngay seetaat fi nga ci toll pour mën a yokk bu mën a jàppale population yi nga xamante ne ñoo tax nga nekk fi te ñoom it dañuy yëngu ci mbir moom solo muy sécurité te sécurité dafa nekk loo xamante ni ñëpp ko soxla loo xamante ni tey jii dañ koy natable foo ko andi rek nit ñi dañuy bëgg a gën a dolliwaat te defe naa ASP yi tey jii ñëpp d'accord nañ ci seen liggéey li nga xamante ni am nañ ko. njëriñ bi ñu am ci force de défense de sécurité ndax jàppale bi leen di taxaw waaye tamit ci population yi ak même ñun ñi nga xamante ni dañoo yore ay service yoo xamante ni yenn temps yi day am ay agent de sécurité de proximité yu nekk ak ñun. gis nañ ni liggéey ñoom euh, neex na trop ndax wax dëgg am nañu qualité bi ressources humaines bi mi ngi fi te yaakaar naa ni lii ñoo xamante ni ñu ngi leen koy defal dina tax tey ji mu gën leen renforcer waaye bu leen renforcer aussi dana tax qualité bi ñuy laaj ci ñoom qualité bi nga xamante ni amoon nañ ko dana yokk ba ñun suñu liggéey tamit yaakaar naa ni dinañ ko sentir bu baax.